xibaar yi El Hadj Ndiogou Diène li gën a fës ci xibaar yi Idriss sekk gëm ne Ablaye Wade tey la gën a dogu ci teg doomam ci bopp réew mi meeru Thiès ne njiitu réew mi loolu rek la bëgg ci xolam daa ngeen dégg Idriss Seck ci biir xibaar yi fekk jamono jooju kuréel gii di mouvement pour le Sénégal di xam ne ne ab lay danger la di maanaam musiba la pour Sénégal ñoom ñu wax ne Ablaye Wade moom fitna la nar a indi ndaxte du nangoo bàyyi nguur gi waa mouvement pour la Sénégal doon euh, samp seen i bànqaas ca diwaanu Ndar jafe-jafe gu tar la askanu Daaru Salaam ca Pikine di dund ñaari weer a ngi nii seeni robine xelliwul tokk ndox tax nag bàyyi si citerne lañ yaakaar pour mën a am ndox eh, kilifa diine di naqaru ni nguur gi doy dalee njàng mi alxuraan ci mim réew ñu gis ne nag eh, kon danoo joxuñu benn gëdd njàngum alxuraan mi eh, kilifa diine yi doon amal ca Louga ndaje bu ni amal at mu nekk daañu ci teg tàggat yaram ak yéen kaay yi génn ay bés gannaaw xibaar yi clando ak Ibrahima Benjamin Diagne mu nekk li gën fës ci xibaar yi ne suñu leen ci ay faram El Age de Google. Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop moo nekk ci machine bi mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak rajo Futurs Médias xibaaru diggu bëccëg gi ñu door ak du soxal wàllu politique Idrissa Seck gëm ne Ablaye Wade moom ba léegi xememte fa mooy mu teg euh, doomam ci bopp réew su fi jugee nee na loolu moom Ablaye Wade euh, ci xolam la ko def te euh, fu mu lay jëfee ngir mu am nee na nag Ablaye Wade ngir bañ lu ni mel sax ñu bañ ko lam-laamee mënoon na nga vice président bi da ngay tànn kenn koo xam te ne euh, bokkoo leen deret Idrissa Seck ñu déglu ko. je l'ai pratiqué pendant trop longtemps. xam Ablaye Wade bu baax. xam naa ni xelam xalaatul benn yoon mu bàyyi xalaat ak mëbët ga mu amoon ci donnante nguur gi ndax bu fekkoon ni loolu mooy yitteem dëgg-dëgg benn baat képp benn baat képp lay dugal ci projet de loi ba mooy mu wax ni président de la république ak vice président de la république mënuñu bokk njaboot mënuñu bokk deret waaye defu ko loolu kon mooy firndeel ni moom Abdoulaye Wade ba léegi mébétu jox nguur gi doomam mu ngi ci xalaatam gis nga Abdoulaye Wade mi ngi koy desee as ci bakkan muy noyyi feek mi ngi koy desee as tuut ci pouvoir ak nguuru du bàyyi xalaat boobu maa leen wax n'abandonnera pas cette idée il n'y renoncera pas. mu nekkoon Idrissa Seck euh, maire Thiès euh, ki nga xam te ne mooy Malal Junior Diagne moom doon tekki lay kàddoom Idrissa Seck nekkoon tey grand émission grand jury ci RFM ak tamit si on a parlé euh, ci TFM waxtaan woowu sax ci TFM di si on a parlé daa ngeen ko mën a seetaan vingt heures maanaam huit heures ci guddi bu tegale fanweeri minute wàllu politique ba léegi kuréel gi ñuy woowee mouvement pour le Sénégal ñoom nag gis ne jamono ji. gi Ablaye Wade nekk na musiba ci réew mi nee na nag loolu li koy firndeel moo dina Ablaye Wade du nangoo bàyyi benn yoon nguur gi te loolu bu ñu defoon mënta jut euh, fitna gu ci biirum euh, euh, na boobaak léegi am na juróom bi nga xam ne moo fi ne di Ablaye Wade wax le 14 juillet ne dafay wax bi te waxul ak askan bi doon wax ak ay ñoñam nga xam ne kon réew mi amatul président mu amul président nag réew moo xamante dafay dem ci ay jafe jafe-jafe yu tar la nar a doon loolu tax ñun ñu woote pour que sénégalais yi ak sénégalaises yi patriotes yi pour ñu dimbali sax président bi génn ko fi ko téye parce que dafa mel ni loo xamante nii dafay jaxase réew te day nekk réew moo xamante ni day dugg ci yi nga xam moo am ci yeneen réew yi te yaakaar naa ne yooyu musiba la te warul am ci suñu réew ñun nag ñu ne nañ ci taxaw wax ak moom mu bàyyi ñi nga xam ñoo koy téye di ko wax toogal parce que mënatul toog parce que citoyen du parti politique yi rek du mouvement associatif yi rek réew mi yëpp moo jógandoo wax Ablaye Wade ne ko bul laal suñu constitution parce que ñun lay waaj a daaneel dans sept mois te bëgguñu dara yàq ko réew moomu noonu la wax pour ay ñoñam janoog ñooñu ñu jënd ay ngànnaay booleeg waa bitim réew yi ñuy dugal ci réew mi ak seen i ngànnaay pour ñu faat bakkanu Sénégalais yi te ñun pare nañ pour faatu pour bu ñu faatoo suñu doom yi ak suñu rakk yi ñoom ñu ñëw ànd ak patriotes yi ñu defar Sénégal mu euh, ba léegi Euh, Pape Diop euh, wax ne PDS ba léegi ñoom ñooy majoritaire di maanaam ñoo ëpp doole ci réew mi mu wax ne nag opposition bi moom dañuy ŋàññi ndaxte loolu la ñu dese moo tax ñuy ŋàññ saa su ne waaye li wëtt wóor moo di ne ñoom ñoo ëpp doole te si woote jotee daal ñu leen ko wan euh, Pape Diop doon teewi meeting boo xam te ne waa PDS danañ ko amal ca Thiaroye ñu déglu ko ci micro Salif Sow. Le parti doit gouverner Sénégal pendant su ko waxee. fi ko teg mooy parti bi mu am c'est le parti le plus implanté dans le Sénégal c'est le parti qui a le plus de militants dans le Sénégal bu ñu àndee ci kaw loolu cultiver loolu lim ñu boole def ñu ay frères ak ay sœurs ñu nekk benn. moo tax mu ni war nañu gouverner le Sénégal pendant cinquante ans ngir yàlla nañu ànd nekk benn jàppandoo ñëpp mënuñu jiitu il faut organisation boo gis kenn jiitu ñeneen ñi topp ci mais ci jiitu gënul ñi ci des loolu àddina moo tëdde noonu kon nañu ànd nekk benn gën kon ñi nga xam ni ñi ngi wax ñu ci bari amuñu programme sax bu ñu présenté Sénégalais yi. amuñu programme sax bu ñu présenté sénégalais di kàddu euh, Pape Diop président du Sénat donte meetingu PDS ca Thiaroye juróomi minute moo tegu ci une RFM rajo bi leen di xibaar saa su ne. week ci xibaar yi ab quartier ngi nii ñaari weer a ngi nii euh, ndox euh, robi génnul ci robine yi muy quartier bii di Daaru Salaam nekk ca diwaanu Pikine mbir mu nu mel nag julay ay gàllankoor ñi nga xam te ne wi rawatina ci jamonoy tàngaay ji reportage Salif Sow. ñu def benn rang bu gudd ay maire ay xale yu góor ak yu jigéen yore ay siwo ay paan wala ay bidon àgg sax ba ci satala dañuy root si ndox ci camion citerne bi. Khady Fall lakk na lu ëpp juróom fukki at dafa xees mu ngi ñàkk tooy xepp mu ngi sol yëre wolof di mu xamal ni affaire yi demee. waaw dañoo am problème ndox lu ëpp ay deux de matin trois de matin lay ndox di am dañuy yeew di root. bu camion citerne bi ñëwut Nogoy Ndiaye nee na ñoom dañuy dem daal di uti ndox ci pompe jàmbaar yi. dañuy dem ci pompe yi rek. te ndoxu pompe jàmbaar yooyu yee sax ñoom ñu ngi jëfandikoo wante neexu leen benn yoon dañ ko xaw a ragal. waaye ndoxu pompe nag baaxul nag bu ngeen di togg ak yooyu nag ngeen moom la bu ñu amul ndox mu baax mi ci ndoxu pompe bi rek la ñuy togg. Daaru Salaam ndox askan wa fay yeewoo di dindi jafe-jafe yu tar. sangu bi moom ak fóot bi moom am na problème parce que kër goo dugg fi mu ni ëmb fóot yaa ngi taxaw ci tàngaay bi da ngay xesaw xamante ne sonn nañ trop. facture yi matatul ñaari ñaari weer mi ngi ñëw te amuñu ndox. lii nag bu mu amee fii ak léegi bu néew ba néew mot na ñaari weer Salif Sow Pikine rajo Futurs Médias Salif euh, saw euh, njiitu UNCS euh, di genn ci kuréel way jëfandiku yi ci senegal di artu askan yi ci lu jëm ci wàllu yàpp yi ndaxte nee nañu nag yàpp yooyu nga xam ne ñu ngi koy jënd xamuñu ci yan anam lañ ko reyee waaye tamit tey fan lañ ko reyee tax nag mu ci wax askan wi ñu bàyyi ci xel bu baax a baax Jean Pierre Dieng yëkkati yooyu lay kaddu gannaaw ndaje bu UNCS doon amal ca caaro yi ñu déglu ko ci micro Salif Sow. fi mu ne man boo ci yan condition sellin la ñoo war rey la nga war dund ci ndawal dama la naan à part cachet vétérinaire leneen mënuma la ko te ci junne nit benn wala ñaar nga ci am te bés bu ne nit ngénte ak eh, nekk ci ay dëj wala xew wala jóge màkk kon loolu moo lay won ni ñu ngi eh, def na ko sulul noonu ci wàllu yoon ci reyu ndawal. mën nañ ne way jëfandikoo ndawal yi seen eh, wér-gu-yaram fi ñu toll nii mën na am jafe-jafe wala ñoom seen bopp mën nañ am jafe-jafe. am na jafe-jafe torop ndax man administrateur hôpital la daan teg la waaye la fay am ci cancer kenn mënula la ko wax lépp ci ndawal li ci luy jëm biir la yaa xam lu ñuy naan lu ñuy lekk waaye comme tey waxi ndawal la lu ne la lekk ndax dibitër yaa ngi fii li ñuy lakk te yow doo gis ndawal dangay gis yàpp bu ñu xas ba lakk ba pare donc ñun ñëpp ñu ngi en mu nekkoon Jean Pierre Dieng jiite kuréel gii di UNCS. Union nationale des consommateurs di Sénégal di genn ci kuréel way jëfandiku yi kilifa diine yi nag ñoom eh, ñaawlu ñàkk jox eh, gëdd goo xam te ne ñàkk nañ ko jox eh, njàng alxuraan fii ci Sénégal ñu joxan ci nag nguur gi ñu fësal lu ni mel gannaaw seen ndaje boo xam te ne ñi ngi ko doon amal ca Louga ci geneen wàll nag naqar nañ bu baax a baax yenn kàddu yoo xam ni ay kilifa ñu ngi koy yëkkati ci rajo yeeg tele yi Ibrahima Khalil Sène lu tax njàngum alxuraan mi ñu néewal ko doole fii ci suñu réew muy laaj bi nga xam ni kilifa diine yu daje fii ci Louga ñu ngi siy jéem a indi ab tontu waaye ñoom nangu nañ ni lii di njàngum alxuraan nekk na benn besoin social ba tax kilifa yi ngànk réew mi war ko bàyyil xel bu baax sëriñ Mansour sàll di xalif sëriñ Abbas sàll moom moo yore woon kàddu kilifa diine yu joxante woo daje fii ci Louga. état sénégalais moo war jël alxuraan en charge ñoo war a ubbi lan lu tax loolu. alxuraan dafa nekk lu ñuy tuddee besoin social. alxuraan jàng alxuraan dafa dafa bokk suñu patrimoine culturel. te suñu defoon loxoom itam su ëllëgee dana ko gis nag. danañ ko ci lu jëm ci kaddu yi tegg newul yi nga xam ne yenn ci ay kilifa ñu ngi koy yëkkati ci rajo yi ak ci télé yi kilifa diine yi taje woon fii ci Louga ñoom ñu ngi koy ñaawlu bu baax kilifa yi ngànk réew mi di wër di wane seen a bokk ci benn tarixa wala ci benn diine kilifa yi diine yi nekk fii ci Louga ñu ngi sàkku ci ñoom pour ñu dakkal ko ñu fàttali ne daje bi ñu doon amal fii ci Louga ñu ko soxe ñoom ñooy Serigne Adi Touré bu Fass Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh bu Tivaouane ak Serigne Abba Sall Louga seen i doom ak seen i sët di ko wéyal mu am tey lu toll ci juróom fukki at mu doon benn ndaje bi nga xam ni kilifa diine dañu fay daje di wax jafe-jafe yi nga xam ni société bi ñu ngi koy jànkoonteel waaye tamit di indi ay saafara yu ñuy tënk ci benn résolution jëbbal ko kii di njiitu réew mi Ibrahima Xalis seen Louga RFM. ak RFM kump tàggoog nag yéen. leneen ci wàllu xibaar jëm ci ñaareelu conférence nationale bu jàngalekat yi. rafetlu politique gu Abdoulaye Wade ci wàllu njàng mi ñu koy amal nag ci suba ba léegi ndaje boobu nag liñ ci waxtaanee mooy mu fukki at Abdoulaye Wade ci wàllu njàng mi jàngalekat yi taxaw nañu ngir uh, yeneen i uh, taxaw yeneen i jéego di ndaje boo xam te nag mi nga am ci teewaay njiitu réew mi président Abdoulaye Wade daañu ci dellu si yéen ci suñu yeneen xibaar ak sunu nattango Mouhamed Aliou mu baax ma ñu fa teewal ca diwaanu Matam enquête bi ñu ubbi nag mi ngi wéy jëm uh, ci cong goo xam ne nag amoon démb diggante. Ourossogui ak Bakel ay Samba Boy euh, songoon nag ay nit ñu duggoon ci woto di tukki ba gaañu sax gaañ gu méttee métti kenn koo xam te ne doomu France la leerali kaali bandel ñaaw xibaar yi ñuy taataan gannaaw attaque bi ñu def ci yoonu Ourossogui jëm Bakel ba tubaab ñu daal di koy dóor dóor yu metti commencé nañ kon ci xam dara ñoom ñooñu di Samba yi toll ci lu ëpp fukki doomi aadama anglais lañ doon wax ak tubaab boo xam ni jagut te nag ñu daal di muro ay kaala yore ngannaay ci xeet boo xalaat ba ñu arrêté lii di cette place bi rek la ñu daal di ubbi portière chauffeur bi ne tubaab bi na wàcc daal di génne bagage am yépp jamono biñ ko doon malmené nag la ñu daal di tombé ci beneen émigré bi nga xam ni vacances la doon ñibbisi ñu daal di jële ci moom lu ëpp ñeenti millions ci coupure euro beneen élément nag moo di moom mi di Philippe Royer médecin français boobu doon rejoindre ay ñoñam ya bokk nekkoon ci Bakel warta woon jaar ci yoonu Ourossogui yi ndaxte gaay ñooñu mu doon fekk yëpp Tambacounda la ñu jaar te itam tubaab bi ba mu yeggee ci aéroport Léopold Sédar Senghor taxi bu ko fa jël dafa jaar ci benn auberge bi nekk ci Patte d'Oie Buldeuse laata kon mu yeewu wutali gaaru cër bu pompier bañ leen ko yëgalee nag mboolem unité gendarmerie yi bokk la def nañu seen kéemtalaay kattan waaye ba léegi teguñu loxo benn doomu aadama bi bokk ci band bi boobaak léegi itam ñi bokk ci compagnie gendarmerie bu Matam ñoom it kenn demul ñu des ndekoon fu mu nekk ni orienté nañu lépp li nga xam ne moo di seen ay action ngir kon fexe ba teg loxo Samba Boy yu yooyu le ci biir yenn dëkk yi ku demee ni mu déeri Dembankaani Jawara ba sax orka jëre tiitaang ak njaqare mu ngi wéy kon di gañe askan wi waral sax ba ñoom ñooñu di takk der yi yëkkati kaddu jagleel ko askan wi ngir ñu lëkkaloog moom ngir kon ñu mën a am ay piste yu ñuy jaar ba teg loxo Samba booy yooyu le waaye ñàkkum kaaraange gi day firndelaan rek nécessité ak urgence bi ñeel kilifay nguur gi ñu daal di yokk takk yi ci diwaan bi nga xam ni bëri na ci lu ay samba di dal ci askan wi te defuñu leen dara mu nekkoon sa naataango Aliou Bandel Niang fi ci doonu Matam pour RFM. Aliou Bandel Niang ci lu soxal euh, bitim réew Union européenne jël na dogal ne daal balaa yàgg daañu dooraat seen jëflante ak Guinée Bissau loolu nag gannaaw ay waxtaan yu gudd njit yu Guinée Bissau nangu nañu sart yi nga xamante ni moom leen ñoo européenne tegoon di ñu sàmmoonteeg démocratie waaye itam àq ak yelleefu doomu aadama yi Noa Mankali. Union européenne day war a jëlaat euh, coopération moom diggante ak Guinée Bissau information bi dañu ko jox ci benn communiqué de presse depuis coup d'état militaire bu premier avril 2010 foo xamante ni dañoo jàppoon premier ministre Carlos Gomes Junior euh, pour quelques heures ak chef d'état-major général maanaam ancien chef d'état-major général des forces armées l'amiral Zamoran Douta Union européenne moomu dafa jeexaloon euh, de coopération ak Guinée Bissau ci bu ñu bu ñu denoon def ay négociation situation boo xamante ni dafa yàgg loolu finalement ñaar fukk ak juróom ñaar réew ñoo xamante ni ñooñu dañoo annoncé seen reprise progressive ci coopération ak Guinée-Bissau waaye décision finale bi dafa war a dañ ko war a suba altene ci benn réunion boo xamante ne ministre des affaires étrangères ci union européenne war nañu ko am fale ci Bruxelles union européenne moom dafa imposer ay conditions ñoo xamante ni mën nañu citer respect ci démocratie ak état de droit ci accord bu ñu amoon fale ci Cotonou te boo xamante ni autorité bi saw guinéen war nañu ko appliquer pour mun a jeexal ak euh, impasse boo xamante ne mu nga am diggante Guinée Bissau ak Union européenne waaye reprise bu coopération bi diggante Guinée Bissau ak Union européenne dañ ko war a seetwaat euh, euh, juróom benn weer bu nekk dañ koy war a revoir maanaam lu ñu koy revoir régulièrement diggante Guinée Bissau ak Union européenne waa Mankali Bissau waaru tàggat yaram ñi ci ànd ak Malal Junior Diagne Malal ñu ngi lay nuyu. as Ndiogu maa ngi lay fay. wàllu basket dañu tàmbalee. ak euh, finalu démb ji ci wàllu coupe du Sénégal si jigéen ñi euh, ndar nag moo ca jël raw gàddu go Sénégal parce que club moo duma équipe bii di GIA euh, juróom fukki poñ la waa ndar yi am ñee am ñeen fukki poñ ak juróom-ñeent benn poñ képp doxoon seen diggante. loola nag euh, entraîneur bu Saint-Louis basket dafa jàpp ni liggéey la bu nu yàgg nas moo tax mu sotti euh, tey itam dañu am ay joueuses yoo xam ne yu xarañ lañu tey itam mën la ñuy def waaye ndam loolu Saint-Louis parce que lu fas yéene ñu ca yam la ñu bëgg mooy final am dimanche bii di ñëw mu jàpp jëm ci wàllu championnat bi a ngi nii kon jot nañu fayeeku biiru mooy entraîneur bu Saint-Louis basket club. ñu ngi sant yàlla bu baax ñu ngi sant yàlla parce que parce que tey yàlla moo ñu may ndam ñu ngi koy sant bu baax mais am nañu ay éléments ak basket bu tax ñu mën a gagné parce que boo xoolee depuis le début de la saison Saint-Louis basket moo jiitu si lépp coupe ñoo jëkk qualifié championnat ñoo raw ñëpp donc donc lii ñuy tey ñii continuité la ñoo ngi si yoon boobu ba léegi ñaar yëpp ñu perte coupe du Sénégal ah. cette année yàlla jàppale nañu ba gagné nañ coupe dañuy dellu soir bis dimanche ñu gagné championnat parce que loolu mooy suñu objectif bi et on va continuer à le faire daañu continuer di yëpp Sénégal fii ak 5 ans fii ak 5 ans le saint basket sera présent. ñu daal di jàpp ci côté nag waa GIA ñoom entraîneur bi nee na amul dara lu mu ci rëccu xale yi ay gone lañu te itam ñu ngi leen di tàggat lu mu ci bëgg mooy fi rek ñaari at ñu doon équipe boo xam ni kenn mënu leen duma ñu ngi sant yàlla te itam di gërëm xale yi di kontaan la ñu liggéey saison bi yëpp ñu déglu Michel Wassou. xale yi def nañu lépp lu ma leen sant kontaan naa lool ci ñoom defet bi day tax gone yi gën a màgg ndax. ñàkk expérience moo tax ñu ñàkk match bi waaye nag dañu ñàkk ci kanam équipe bu am expérience kon nañu sant yàlla bu baax te kon jël diktak yi ak gone yi fi leeg ndax li ñu jàpp ni suñu ko bàyyiwulee fi leeg ñaari at daanoonu gagné ay titre ami ndam te loolu man lu ma bir la kon nañu wéy dellu suñu kër di door ak wéyal suñu po si wàllu football nag njoogu jàpp nañu ni Touré Kunda moom qualifié na pour finalu coupe du Sénégal bi démb la waa Mbour yi dóor waa Ndar yi di Saint-Louis fu sant ñeenti bal si dara daanu xam nag seen adversaire àllarba ji ci diggante Union Sportive bu Wakam ak Casa Sport mooy nekk ñaareelu demi-finale bi loolu jàpp nañ ko ci Ndakaaru ca Demba Diop nu jëm nag ci wàllu championnat bi démb itam jàpp nañu ni eh, ñi nga xam nag ñoom na di waa USO dañoo dóor Guédiawaye football club ñaari bal ci dara loolu ca Demba Diop la xew woon HLM itam dafa duma équipe u daara bi benn bal ci dara tey ji nag la ñu koy daal di yeggali jàpp nañu ko ci Demba Diop GIA Linguère ñooy fubal ñeenti waxtu bu ñu noppee Jaraaf ak US Gorée altine Douane AS Pikine ñaari tali ak yaakaar àllarba Touré Kunda ak waa DUC dibéer ji di ñëw ñaar fukk ak ñeent ci weer bi Casa Sport mooy dalal compagnie sucrière sénégalaise loolu nag ci wàllub euh, football daal mooy li ñu ci mën a jàpp jàpp itam ci wàllu Copa América ñi Argentine jot naa qualifié euh, jëm ci euh, demi-finale yi gannaaw ba nga xam ni euh, dafa gagné Uruguay ci wàllu série de penalty 4 tirs à 3 la mujjee ba ñu jeexalee match bi nag defoon nañu ku ne benn bal ci sa kàngu dara Argentine dañu ko duma. la ma Chérif wax nañu kon lañu ko bindee dafa ñàkk ci wàllu li nga xam ne mooy série de penalty kon ñoom Messi daal seen Copa America bi du ñu dem ca demi-finale yi. jërëjëf Malal Junior Diagne. RFM a Master Office. bi ngeen taamu ci seen mobilier ak matériel de bureau informatique salon électronique moo leen di may